ami internet dak medina point com dal leen ak jàmm tey nag euh, ñu ngi fii ci école bu Médine euh, fas yéene leen a wan nag yenn ci ay réalisation yi nga xamante ne ni moom la maire bu Médina def di Bamba Fall topp leen ma ñu ñëwaat ba tey ñi ci biir Medina fi ma taxaw ni centenaire la mu nek rue 25 prolongé dem centenaire fi bo fi joggé dem ba Eco Médine pratiquement pavé la suuf amatu fi ñi ni bi ñu xalé ci souf lañ doon fowé mais ku xol fi gis ne xar-xaru kanamu Medina lu bari changé na té lolu li ci ëpp solo li ci ëpp li ki ko def c'est la commune de la Medina, ak son maire. bo xolé d'une manière générale pavé bi wër na biir Médina soo jëlee. Si euh, face buntu face dem 11 ci rue 22 bi lepp pavé nañ ko Blaise Diagne pratiquement les pavé nañ ko rue 6 pratiquement pour pavé nañ ko en un mot rue 11 également parce que pratiquement pavé bi wërna Medina, lepp té lolu bokk na ci li participer euh, euh, changement de figure bu Medina am mu nek vraiment jox kanam. ba tey ñi ngi ci biir Médina fi ma taxaw nii ci kaw rue 22 bi la su ngeen gisee di ngeen gis pabe yi mu fi def gis ngeen fleur yi mu def ci pavé yi donc encore une fois visage yu Médina changé na tuuti dugg nañu ànd nañu ak yéen dugg biir école Médina ngeen gis école bi mu fa tabax bi mu fa defar muy école xale yi gis ngeen école Médine terrain bi ñi ngi koy defaraat gisal ngeen ko seen bopp gis ngeen allée yi mu fa defar pabe nañ ko boo wëree Medina ànd ak yéen wër Medina yëpp gis ngeen pavé yu mu def baax na lool rafet na lool visage bi changé na lool waaye ba tey askanu waa Medina yi ñu ngi yaakaaraat seen maire mu defal leen lu ëpp li mu def. voilà internet yi ba léegi ñu ngi fii ci rue 3 angle 6 nekk fii ci Médina ba léegi ñu seet fi suñu benn papa muy wax ci euh, social bi nga xamante ne Bamba Fall di mu ngi koy def mu di papa Ousmane Fall papa ñu ngi li li nga ma nag. Je ci tontu bu baax a baax ndax man kat conseil municipal depuis 2009 Je suis livre ci social bi def ci Bamba fay dimbali mais mais Bamba ma man Bamba il est trop il est trop ndax euh, gis naa ay ñu feebar fii ci medina demba ci mujj ça fait trois jours la maire bi yàlla daal ko moom doom ji nee ma kat danaa la yóbbante ci Bamba Bamba jëloon sama yaay bi mu nekkee hôpital trois mois moo ko jël en charge à cent pour cent mais je sais que ni Bamba était un type bien était un bien dafay dimbali nit ñi te tax mi ngi jàpp nag conseil beeg yooyu bokk moom parti ndax ndax boo ñun suñu force mooy sunu conseil municipal amul APR amul PDS amul amul kenn ñëpp Médinane la loolu moom mën naa ko garanti te su ma waxee ku ma gis xam ne kii di wax kii du nitu caaxaankat ndax man du ma caaxaan lu muy dugg rek am na ci fan la ko teg mais Bamba vraiment mais Médinane sant nañ ko te gërëm nañ ko. Euh, ba tey internet Dak Médina comme com ñu ngi fii ci euh, rue 5 angle corniche euh, ñu nekk ci concept wax ci Bamba Fall sociale bi nga xamante ne ni moom lay def fii ci biir Médina te nag ñu seet si waat fii monsieur Da Fall. waaw maa ngi leen di fay yéen waa dag Médina di leen nuyu di leen taatagin di leen sant di leen gërëm ci li ngeen ñëw fii fekk suñu fii suñu duwaan ci biir Médina abattoir ci rue 5 angle corniche. di xamal ne lii ngeen ma laaj sawar naa ci wax lool muy le premier magistrat bi nga xam ne ne moo nekk fii ci commune medina ñu koy wax Bamba Fall ma nekk ak moom ci biir commune medina nekk fi conseiller municipal en même temps nekk délégué de quartier nekk troisième vice président des Maures du Sénégal ma am te mbégte lool li ngeen fi ñëw tey laaj ma Bamba Fall social bi muy def fii ci Médina umpul umpul kenn man de wax dëgg neex yàlla yàlla rek moo tax may wax li ma gis sa mbët mu koy def fii ci Medina bari na mu ngi jàppale doomu aadama yi mu ngi jàpp néew yi doole yi mi ngi def kent laay kàttanam ci biir Medina ba fi mu mujj lu mujj yàggul rek gis naa fi benn problème boo xam ne ne fii mu nekk nii ba mu amee dama ñëw ne ko ah Bamba kat am na lu xew fii ma ne lu mu ne xew ma ne ko fii kat dafa am dëj te waa dëj bi seen loxo demul te tegewul noonu mu daal di taal otoom ñëw fekk ma ba fi. ñu dem ba ci kër ga mu def fa loo xam ne bugguma ko sax tudd ci télévision waaye yàlla xam na en tout cas loolu ñu ko ci gërëm di ko ci sant. waa Dak Medina vraiment gis nañu li ngeen di def liggéey bu rafet bi ngeen di def ñu demandons à l'État et surtout les maires de vous appuyer parce que vraiment ñu ngi def seen kent laay kattan man daaw ma déglu yenn information yi mais depuis que ma commencé Dak Medina di ko déglu maa ngi am ay information yoo xam ne ne vraiment amal nañu njëriñ amal na suñu ngox bi njëriñ surtout secteur bi ma géré medina abattoir 1 vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla. asalaamaaleykum internet ak medina point soir nañ fi tey nag comme à chaque fois ngi indi leen sen reportage du jour tey nag ñu ngi fi ci euh, medina rue 11 angle 16 war fi amal euh, reportage euh, jëmale ko ci ki nga xamantene ni modi maire bu medina di Bamba Fall ñu ci wax ñu waxtane ci social bi nga xamantene ni mu ngi koy def ñu wara wax ak soxna si soxna si ñu ngi lay nuy di la baye nga présenté wu. man maa ngi tudd Manar Iba Pène dëkk ri 11 angle 16 waaw nekk agent si mairie Médina bi. Mhm. Euh, ñu dégg ne Bamba Fall day def social euh, ci biir Médina yëpp euh, yow lan nga ci xalaat ndax social bi muy def yegsi na ci yow wala gis nga koo xamante ne nii def defal na ko defal na ko dara. waaw Bamba Fall moom bu ñu waxee ma laajee ci moom dinaa sabar tuuti wax ci moom parce que mi ngi liggéey te Bamba li social waaw mi ngi social na. ba social la weesuwul yaa ngi dimbale ay nit ku ñoo fëgg sa bunt nga tijjal ko ko di fayal soxla nit ñëpp Médina bi bari na rey na yaat na trop mais macha allah daal macha allah Bamba Fall mu ngi di def social ba social weesul ngay jàppale ay doomu aadama ñu xam dañ di xëyoon di toog def ñu dara wala ñoo xam dañ dem taxawaalo di jël fii fi jàmbur dugg sa naka du noonu nga jël leen daggal leen salaire di leen di leen liggéey ñu leen liggéeyal nga leen di fay. ñëpp ci doomu Médina loolu social weesu mënu ko weesu parce que nag Bamba Fall li mu def moom rek ko mun maire bi li mu am ci emploi ak li muy fay parfaitement emploi amul benn maire bu koy fay kon loolu dimbale waa Médina ndax Bamba Fall moom Médina moo ko ñor Médina la bëgg